Sunugal 24 point net waaw je dirais même pas malheureusement parce que man démb ci guddi laa jot benn email bu ñu ma transféré parce que jotuma ko man dañu ma transféré email bi ne ma kat euh, PV bi génn wàññi na yow bokkuloo kii parce que dañu rejeté sa candidature bi ma ko xoolee ci biir li ñu wax ñu ne motif bi ñu ne. amul cachet présidente section mais xam nga li ci li ci rigolo wala li tax may reetaan sax parce que union sportive de Wakaam club bu bu bu bu bu lax ay discipline yu bari la donc loolu noonu ñun fii Wakaam boo jëlee yeneen équipe yu mag am na équipe yu mag yoo xamante ne multi sport la ku mën ni Jaraaf Saltigué c'est par exemple le président de l'association ki signe le document officiel moom mooy signé kayit yooyu noonu deux mille élection deux mille quinze moom la woon élection deux mille euh, dix-neuf bi nga xamante ne moo faraat fédération actuelle bi nii ñoom ñoo ma mandaté woon age yëpp même tey jii su ma waroon dem mission fenn si tur Ouest Ouakam Ouest Ouakam moom moo may signal samay këyit bi may dem par exemple euh, bu mujj bi mooy bi daaw bi may dem ànd ak équipe nationale yi dem Espagne pour ma génn territoire bi wakaam dañ ma defal benn ordre de mission boo xamante ne mooy moom moom mën a yóbbu fédération mais boobu noonu aussi suñu président bu mag bi moom moo ko signé voilà donc euh, loolu mooy li nga xamante ne moom lañ xam mais li ci taxaw a doy waar rek mooy que ne man personnellement transféré woon nañ ma woon mail parce que man du ma jot mailu fédéral bu ligue bi c'était le 11 janvier boobu bi ma ko jotee liñ bind ci kii bi mooy que ne président association bi mën na signé wala président section mais li ci gën doy waar mooy si ëllëg sañu yónnee beneen kayit boo xamante ne dañ ne président section bi rek moom moo war a signé donc loolu noonu rek day wane ne am na ay lax-lax ay jaxas-jaxas yu am dem gëm naa seen bonne fois parce que samay xarit lañ du ma du ma ko nëbba ñi nekk ci ligue bi ak ñi nekk ci fédération bi ñoo ñi suñu xarit lañ mais fi ñu toll nii li ñu amal solo mooy dinañ dem defi recours léegi léegi incha allah teg ko si yoon sans ak dal parce que man ñëpp dal lañ ma xamee dama nekk ci basket bi pour waaw loolu laa ko mën a jàppee parce que xam nga tamit tey am na sama beneen collègue boo xamante ne man la àndal muy Serigne Ndiaye bu président Sébi basket club moom it dañ rejeté candidature am ñu ne bokkul woon ci euh, activité fédération daaw te moom mu wan na ma sànq rek fiche d'affiliation boo xamante ne dem na fédération ba fay xaalisam boo xamante ne doy na maintenant peut-être yoruñu woon document yooyu noonu mais dinañ def appel bi tranquillement sans coow mais vraiment di ñaan yàlla rek ñëpp dal parce que tey jii man su fekkonte ne sama candidature bi aussi sama recours arrêté nañ ko de façon vraiment courtois en tant que républicain en tant que sénégalais damay bàyyi ba pare ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk parce que man ma nekk lii Dakar mooy sama mébét waaye suñ ko yàlla def lu ko yàlla tudd tamit que ce soit Mactar ak David naa dem liggéey ak ñoom tranquillement incha allah. Sunugal 24 point net l'information sunugal24.net